bi ngir xale yi kii di ko xamle aljana këru yàlla gu rafet ki ko bind Edward Hughes ku def illustration bi Lazarus ki ko teg Christian Lingua ki def adaptation bi Sarah S ki ko nettali Fodé Moussa Ndiaye nettali juróom benn fukk ci juróom benn ngir jokkoo www point bibleforchildren point org www.m194.org Bible for Children P.O. Box 3 Winnipeg sañ-sañu copier bi su nekkee ni ko jaay ba Yeesu nekkee woon ci kaw suuf waxoon na ay taalibeem ci mbirub àjjana woowe ko sama këru baay te ne ay kër yu bare te yaatoo fa nekk kër yi dañoo yaatu te rafet ajjana moo gën a yaatu te gën a rafet bépp kër gu nekk ci kaw suuf yeesu ne maa ngi nii dem defaral leen fa ngeen di dëkk te su ma leen defaralee bërëb booba ba noppi dinaa dellusi yóbbaale leen ba fu ma nekk ngeen nekk fa yéen itam yeesu dem na ajjana ba mu dekkee ca ñu dee ña ba taalibe mi nekkee di xool yeesu yëkkati ko te ab niir jëlee ko ci seeni bët boobu ba tey gaa yu gëm ci kirista ñi ngi fàttaliku digëb yéesu ne dina ñëwaat jëlsi leen yeesu dina ñëw bu gaaw fu kenn xaareewul wante naka la fay demee ngir chrétien yu dee balaa muy ñëw injil yi ne na dañuy dem nekk ak yeesu bañ teew fii ci jëmm mooy nekk ak borom bi nekk ak borom bi peñuma téere bu mujj ci njiit bi mu ngi ñuy wax ni àjjana rafete lu gën a yéeme mooy ni ci ñoon bu wuute àjjana mooy kërub yàlla yàlla gi fépp wante nguuram mi ngi àjjana malaaka yi ak yeneeni mbindeef yu nekk àjjana dañuy màggal yàlla foofu noonu it la nitu yàlla yu dee yépp te nekk ci àjjana di def itam dañuy woy ay woy yu yéeme di màggal borom bi benn ci woy bu ñuy woy mooy yeeyoo nga jël téere bi te dindi tayu yi ndaxte reyees na la te jotal nga yàlla ak sa deret ak ngir ñu bokk ci bépp ngir ay ak kàllaama ak réew ak xeet def nga leen askanu saxalkat yi buur yàlla suñu boroom peñu ma juróom fukk ak ñeent mbind yu mujj ci téere injil bi dañuy woowe àjjana ni yerusalem bu bees bi dafa rëy lool ak miir bu kawe ci biti miir ba jamaa lañu ko liggéeyee te dëkk ba di wuru sa ngalam leer ni weer bu set fondamaay miiru dëkk ba rafetalee nañu ko ay takkaay ak ay xeer yu am jag di rayi rayi ak ay melo yu rafeta rafet bépp buntu dëkk ba dañu ko defaree per bu wuute te rëy buntu per yooyo duñu musa tëju nañu dégg xool nu mu mel waaw ci biir àjjana moo gën a rafetati dëkk wurusu ngalam lañu ko defaree leer ni weer bu set pencu dëkk ba di wurusu ngalam dexu ndoxum dund bu rafet muy leer ni weer bu set di génn ca gàngunu yàlla ca weti dex ga amoon na ca garabu dund bu ñu ne na gis ci toolub àjjana garab gi dafa wuute lool dafay jur fukk ak ñaari xeetu doom yu wuute xeet bu wuute weer wu nekk te xob ya di faj xeet yi asamaan soxlawul naaj gi wala weer bi ngir am leer yiwu yàlla ci boppam moo koy feesal ak leer bu yéeme foofu amul benn guddi mala yi sax ci biir asamaan dañu wuute ñoom ñépp dañu leen yar te ay xaat lañu till yi ak mbote dañuy bokk di lekk ñax gaynde yi ak seen doole gépp sax ñax lañuy lekk ni nag yi borom bi neena duñu gaañante te duñu yàq ci sama tund yu sell yi yépp bu ñu xoolee lu ñu wër dañuy gis ni am na mbiru asamaan yu ñu ñàkk foofu amul benn kàddu mer bu ñuy dégg amul kenn kuy xeex wala di siis amul sax ay caabi ci bunt yi ndaxte benn sàkkat nekkul ci kaw asamaan benn fenkat nekk fa benn reykat nekk fa benn dëmm nekk fa wala yeneen nit yu bon nekk ñu fa amul benn fanu bàkkaar bu am ci kaw asamaan nekk ci biir asamaan ak yàlla doo amati benn rongoñ yée ni sax mbooloo yàlla dafay jooy ndax tiis yu rëy yu am ci tund bi ci biir asamaan yàlla dina fomp bépp rangooñ te amul benn dee ci kaw asamaan mbooloo yàlla dinañu nekk ak borom bi ba faw benn tiis amatu benn jooy amatul benn metit amatul benn feebar benn xàjjale te duñu suulati kenn képp ku nekk ci biir àjjana am nga mbégte ak yàlla ba faw lu dàq ci lépp mooy ne asamaan dafa di ngir xale yu góor ak xale yu jigéen yi ak mag itam ñu gëm ci yéesu Kirista ni seen musalkat te di ko déggal ni seen boroom téereb dund bu mbote mi ci kaw asamaan am na ab téere bu tudd téereb dund bu mbote mi dafa fees dell ak tur nit ñi ba xam nga turu nit ñu bind ci biir tur ñépp ñu def seen kóolute ci Yeesu mbaa sa tur a ngi fa téereb dund bu mbote mi kàddu yu mujj yi ci téereb injil bi di wax ci asamaan nekk nañu wuute bu yéeme ñëwal te xelum yàlla ak seetu mbote ñi ñu ngi naan ñëwal képp ku dégg wax ji na ni ñëwal na képp ku war ñëw te ku bëgg bàyyi leen ko mu duy ci ndoxum dund mi te du fay dara ñëwal ajjana këru yàlla gu rafet gi nettali bi jóge ci kàddu yàlla gi injil bi gis nañu ko ci yawaama fukk ak ñeent ñaar wa korent juróom pencu ñeent fukk ak benn fukk ak ñaar ca prim kàddu day leeral saboor téeméer ak fukk yàlla xam na ni def nañu ay mbir yu bon yu muy woowe bàkkaar mbugalu bàkkaar mooy dee yàlla def nañu bëgg lool ba waral mu yónnee benn doomam képp guñu gu mu am yeesu mu dee ci bant bi ngir fay suñuy bàkkaar yéesu dekki ba delluwaat ci kaw asamaan léegi yàlla mën nañu baal suñuy bàkkaar boo bëggee dëddu say bàkkaar waxal lii yàlla yow yàlla gëm naa ni yeesu dee na ngir man te mu ngi dundaat léegi maa ngi la koy ñaan ñëwal ci sama dund te baal ma samay bàkkaar ba ma mënee am dund bu bees léegi te ma mën nekk ak yow ba faw dimbale ma ngir ma mën dund ngir yow ni sa doom amin yawaama ñett fukk ak juróom benn jàngal injil bi te waxal ak yàlla bés bu nekk